maa ngi sant yàlla euh, di julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mhm. di di gërëm Serigne Touba Serigne Mountakha Bachir mhm. di ko ñaanal mu yàgg te wér ak xalif général de Baye Fall ak bépp bépp xalif diine bu nekk Sénégal ak mhm. xalifa aada euh, di ñaanal yàlla daf jàmm ci réew mi tey nag ñu ngi fii ci Italie ci Toscana région Toscana précisément à Cascina Ponte della Pisa ñu ngi fi tey suñu borom dogalaat moom mi nga xam ne dara tëw ko mhm. ñu joxaat yeneen ñetti oto sapeur pompier bii mhm. ci ginnaaw ak yeneen ñetti oto yi nekk euh, yeneen ñaari oto yi ñu chargé pour yóbbu ko pooru mhm. pour ñu embarqué ko fas yéene kaa defar at yeey Serigne Touba jël lépp nag teg ko ci loxo Touba ca kanam Touba ca kanam bi nga xamante ne ñun ci lañ bokk ci lañ bokk ci lañ bokk ci lañ bokk di nuy jëriñ jë Mm-hmm. di ñuy jëwriñ de sëñ Abibulahi Mbacke Fallilu di nuyu mm-hmm. sëñ Takko Mbacke Fallilu l'ambassadeur de Touba ca kanam mm-hmm. ñoom ñi ci ñaan jàpp ci ba mbir mi demee nii uh-huh. di nuyu sëñ Abdou Fatah Gueye di ko wax mu joxal ñu Touba ca kanam nuyoo bi yëpp di nuyu Baye Bàcc Ñang sama jëwriñ di nuyu Baye Xaas Diop di nuyu Baye Serigne Diop di nuyu sëñ naa Ndiaye ñoom Xaasim ñoom aaw ñi ma àndal ñi ñëpp Mm-hmm. ñoom taala suma suma xarit mm-hmm. eh, ñu ngi siyaare ñëpp daal di bëgg ñëpp di leen wax daal ñetti oto sàmm bi daal mm-hmm. fi nañ ko defaat addiyey sëriñ Touba di nuyu suma sëriñ sëñ Modou Abib Mbacke ibnu sëñ Abdoulahi borom dër bi ibnu sëriñ Touba xalifa de Darou Rahman ñu ngi koy ñaanal mu yàlla ko tawér bi jaahi nabi Mustafa bi jaahi Cheikh Khadim yàlla ñu yàlla defal jàmm defal ñu sutura ñu ngi fii ci Italie ñu ngi nuyu la Sindaco de Pontedera Matteo Franconi mi nga xamante ni ñëw na teew fii tey ci suba pour ñu yóbbu oto yi Sindoko, per favore venuto un attimo. Mm-hmm. Waaw. Sindoko Pontedera Matteo Franconi. Mm-hmm. ñëw nga teew. Mm-hmm. jëmmal mbir mi. pour accompagner ñu ci donation bi. pour mu dem. di nuyu di sant sapo il capo national des vigiles del fuoco. Fabio Datilo. ak ingénieur Romano bi nga xamante ne moom moo yor. Euh, zone Firenze bi la province Firenze bi yëpp région Toscana bi mhm. di sant daal di gërëm mhm. euh, le commandant de Pisa Chanel li mhm. waaw ni ko Nicolas Chanel li ñu ngi sant di gërëm ñëpp di kontaan euh, Sindako bi ñëw na léegi la yëg sax Sindako Pontedera Matteo Franco mhm. di sant sénégalais yi nekk ci Toscane yëpp sénégalais yi nekk ci euh, yëpp sénégalais yi nekk ci Italie yëpp mhm. addiyey Serigne Touba la ñetti oto sabrom yooyu jëm dëkk bu sell ba Touba jërëjëf sa kanam nag mhm. lañ ko jébbal moo koy teg ci loxo sëñ Mountakha Bachir ak commune Touba yëpp lu rafet asalaamaaleykum wa rahmatulah Mouhamed Aliou jërëjëf kontaan nañu jërëjëf jërëjëf ah,